vous avez présenté au ba nga exactement nous préparer préparé ce match tey bien que c'était un derby que tout le monde connaît. parce on dominait on dominait on dominait la rencontre mais ça xoolee euh, parce que erreur erreur lañu maanaam deuxième but erreur de gardien c'est des détails yoo xam football non la demain, c'est des détails yoo xam ne ça se paye cash erreur d'inattention ñu am deuxième but ñoom malgré supériorité numérique bi ñu on a pu réduire le score mais c'était trop tard. bon peut-être que c'est un problème de discours comme tu as dit euh, que gossi dans un premier temps département dañu crispé moo tax ñu jël le premier bi mais lolo, est-ce que c'est pas la faute n'est pas n'incombe pas à l'entraîneur ba nga xam ni war nañu mën discours boo xam comme c'est des jeunes joueurs pour ñu mën a xam nan la ñuy dugg ci match bi parce que un jeune joueur soo ko bàyyee ak dër bu mel noonu nga ne benn tali moo leen séparé nga bàyyi ko noonu mu ñëw ba ci stade bu mel nii mosul mosul jouer ci élite bi là aussi c'est ça c'est le rôle de l'entraîneur Hein? parce que quand quand il y a une défaite c'est toujours l'entraîneur. Mais ça le discours peut être tenir, mais cela ne veut pas dire que les joueurs vont respecter ce discours. Cela veut dire que le aussi, moi, moi, moi, am maturité, bien ramener carrément, que yo mono coach force, parce que gunga renga mon Joueur, moi, moi, quoi, nyar, entraîner quoi, devenir chihuahua, mais yo mono yak chibi police bi. Ça veut dire que moi, mignon chibi police bi aussi. Devenir ni wat, te boy, devenir ni wat, défend, devenir ni wat. Je les encourage parce que c'est un championnat. Match bi, tierna. On nous reste trois autres matchs dans le pool, dans, dans cette pool et nous toujours parce que c'était le premier le premier match. nous avons commencé ce match par 4-4 de losange mais nous euh, avons le premier but, les 15 dernières minutes de la première mi-temps on 4 3 4 3 poser le ballon parce que nous au milieu léegi nag ci loolu lañ def les delluwaat mi léegi teg Babilouge ci lañ leen commencé avec le problème so xolé depuis les vingt cinq dernières minutes premier mi-temps ba ba jël deuxième bi sax nous on pouvait revenir au score ci la non aussi bala ñom sax ñu jéem dem nañ comment changer des ailes après on joue avec des flèches maintenant bañu encaisser encaissé deuxième bi on so xolé suñu milieu on à 2 on avait quatre attaquants avec deux points yo xam ñu pour faire des duels maintenant comme ni ma ko mooy wax ci non sax dañu orange so soo dañu sonna dans l'axe c'est waa football bi. je me nomme Cheikh Bounama Kounta le capitaine d'ASC Espérance. waaw Bounama peut damay damay top question parce que j'ai vu que durant toute la deuxième période du match bi je peux dire même c'est pas une occasion hein, parce que c'est un tir de loin que le gardien bi c'est même pas une occasion de but. Hmm. j'ai vu que aussi à part le penalty bon effectivement c'est un penalty ñu door ko mu mais vous voyez que vous réagir trop trop trop trop trop par rapport à Bayal. Vous savez que vous jouez en 10, vous pouvez mener les débats, de camper le jeu dans, dans, dans votre match terrain. C'est ce que je veux dire. Je voulais expliquer, d'ailleurs, comme les euh, cadets déclenchés, comme dans ce genre de débit, des mettre tellement signaux. Pour nous, nous avons match, un problème. Nous avons joué 20, 25 minutes. C'est là que nous Carrément le euh, système bi comme coach bi franchement 4-4-2 depuis une semaine nous koy entraîné bon ñu adopté koon mais malheureusement comme deux pilotes, la te Bayal et équipe lañu comme maay saluer sama grand le capitaine Dassé Bayal l'expérience expérience bi ñu am euh, ak ça fait deux bon comme euh, coach bi expliqué équipe bi il est né en 88 89 ma ngi Bayal a utilisé son expérience pour pour pour pour

tardivement pour ñu ñëw entraînement tu t'as vu par rapport à Bayal nous sommes une dañoo expérience am expérience par rapport ñun mais bon cette année dix 15 euh, euh, dernières minutes au moins on a fait un bon match on a fait un bon jeu euh, à toi à moi ñu jënd espace mais malheureusement comme tu l'as dit on n'a pas créé des occasions pour marquer des buts mais Dieu merci alhamdulilah ñooy sant yàlla bu baax a baax ndax ñu la même tali là. Il reste d'autres matchs à venir. Bon, on va concentrer, travail dur pour les, pour les autres matchs. Inch'Allah, je pense qu'on va sortir dans le groupe. Bon, je remercie le coach vraiment, notre ACB à nous Espérance. Bon, malheureusement, on a perdu les trois points. mais il reste d'autres matchs Inch'Allah. L'initiative, initiative boo que le groupe Prestige parce que l'idée permet permettre au moins gars am match faire des échanges pour au moins inciter aussi les supporters à ce que ñu xam ni follow le jeu le sport xam nga su ci fair play amul amatul sens quoi donc li nañ permettre aussi euh, gars yi développer yenn aptitude les joueurs commencer à être a professionnaliser wu parce que li day permettre développement développement sport et pour les jeunes aussi même ñi nous xamante ni ñu ngi ci centre ñu ci club yi dans a di nous ak yooyu noonu ñu am esprit de professionnalisme par rapport à seen travail par rapport au sport Je vais vous présenter ginnaaw boo mais woo pare may bayal. Euh, est-ce que du ambition yoy la am ren wala sinon plus ba léegi wala dit waaw man amel Diakhaté coach coach ASC Bayal bon bo xolé Bayal at yi yëpp mu ngi liggéey koñ la bo xamné koñu football la boy yi dañoo nango ñass bo xolé équipe bi ñu yoré ça fait des années boy yi ñu ngi jouer ci Ligue 2 nek CNEPS di entraîner bëgg ko loolu moo ñu animé ba ñun ñu ñëw sax pour jappalé xamné bu ñu jappalé boy yi mën na dem. parce que koñu football la te ñun tamit nawetaan yàgg nañ ci xam nañ ko mën nañ cee jàpp ba am équipe bi daal mën a dem ci kanam jàppale gone yi loolu loolu la ñu laajoon moo tax ñu ñëw ànd ak ñoom boo seetee boobu ba léegi bàyyi bàyyiwuñu ñu ngi entraîné ay joueurs yu mag yoo fi nekk waaye am nañ tamit ay cadet ay xale yu ndaw yoo xam ne ñooy jàppale mag ñi boo xoolee match bii ñu def dañuy wax mag ñi rek waaye gone yi ñoo ko liggéey parce que gone yi ñoo nekk ci ginnaaw di jàppale capitaine bi Lamine Kane

mais objectif yi da nga koy jéem a de ba xam. loolu loolu tamit lu am la mais boo xoolee équipe bi gone yi mag ñi leen di puus mais bu am na foo xam ne bu ñu tollee xale yi ñoom ñooy puus mag ñi. parce que mais waaw mais bàyyal nag bàyyi leen nag bi dem leen nag jéggi zonal bi ah aussi. waaw non dëgg la dëgg la gaa dëgg la gaa football xam nga nawetaan dafa metti waaw tur bi rek moo fi nekk mais léeg-léeg nga am match yoo xam ne ne macha allah. da ngay ñëw ak yeneen mais da ngay gis yoo girincaa bi gars yi di indaale fii saa boo defarul bu baax doo ci mën a génn mais macha allah daaw joué nañ fii championnat bu baax bon ñun ñoo doon championnat zonal bi fii ñoo ñoo jël zonal bi mais boo xoolee équipe yi ñu si génnee HLM moo ñu génnee ñaari yoon te boo xoolee lépp par série de penalty la kenn gañewuñu fi ci kenn gañewuñu fi ci terrain waaw moo loolu loolu nag moo ñu animé ren ñu ñëw daal di ñëw nag daf gën a defarwaat équipe bi parce que xam nañu espérance bon malgré. du équipe du équipe bu la parce que. parce que il faut que je si foofu quoi ça ça c'était des blabla rek mais euh, ñu dellu si ci match bi parce que espérance de ñeu ak benn fougue. bien hein. bon je ne sais pas comment yow nan nga préparer ce match pour mën contourner cette équipe d'expérience pour mën ko dor 2-0 parce que c'était pas évident. Hein. amon nañ ne li lay indi parce que ñun xamone nañ ne Espérance mënul indi lu dul ñun nag ci gagné ko parce que xamnañ né espérance buñ ko buñ ko télé pompé yalla mën nañoo def ñu téla a mën mën ci marché bi té lolu mo fën ci marché bi premier mi-temps mayu ñu leen dara dañoo yéegal attaquant yi ñu def pressing ci kaw bu luñu ñu ñu récupérer tek attaque placé ba mo mo indi ñu am corner bi mën ko centrer gaay yi mën ko duggal rapidement waaw. parce que da nga basé wu rek ci façon de jouer de de d'Espérance pour contrer ko pour dugal ko mais yow indi nga une tactique de jeu bi le permettre nga xam même biñ la rougé aussi gis na ni équipe bi changé wul aucune fois tactique bobu parce que daf ko maintenir toujours ba ci la am deuxième but mais loolu c'est pas aussi yambul de. dëgg la dëgg la dëgg la 4-3-3 bi la rek 4-3-3 bi la ñu liggéey parce que xam nañ né am nañu ay flèches yo xam ne macha allah bu ñu amee neuf bu mel ni boy booy. un jeune comme Mamour mu ne ci kaw mën a contrer axe bi te boo xoolee ñoom seen axe gis nga leen ay ay ñu costaud lañu nga indi Mamour mu contrôler nga te jël Lamine Kane teg ko ci côté bi ak Cheikh na xam nañ na ñoom bu ñu luñ lu ñu yor dootuñu ñemee jouer lu ñu sànni ñu mën a récupérer mën leen a fekk si te am nañu milieu boo xam ne ne technique nañu trop macha allah ak sunu tactique bi ñu teg loolu moo ñu mën a génnee ci match bi loolu moo ñu ci mën a génnee.